yaa ma tee nelaw wey naa la chéri sama ndaanaan yaa ma tee nelaw merci salaamaaleykum téléspectateurs yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo chaîne bu mag bi muy Equivox TV ñi ngi fii ci biir musée des civilisations noires ñu war a fee daje pour récompenser artistes yi nga xamante ni ñoom lañu Euh, nominé waaye nag ba léegi coronavirus mi ngi fi ngeen laver mais mains poster le masque waaye tey ñu tasa fekk daanaan bu nga xamante ni doomu Grand Yoff la muy Petit Coppet Petit Coppet la ñuy tàllal sunu micro laaj ko lan moo doon présence am fii. Abdou Saliou Grand Coppet a ngi fii euh, Petit Coppet tey lan moo waraloon teewaay bi fii. waa maa ngi nuyu ñëpp nag di leen ziar bu baax di nuyaar waa Equivox TV yëpp di leen yaar Abdou Saliou di béggee ñëpp ñi ñuy seeraan di kontaan nag bu baax a baax a baax sunu teewaay nag leen la mooy nominé bi ñu boole ci les révélations de l'année mu doon loo xamante ne nag lu rëy la ndax bokk ci rek doon na loo xamante ne ndam la ndax suñuy moroom ñi nga fi di liggéey te xëy na dàquñu leen lu ñuy def waaye nag xëy na chance la bu suñu borom jagleel ñu rek moo waral tey daal suñu teewaay fii ñaan suñu borom defal ñu doon meilleure révélation de l'année yóbbu ko Grand Yoff ndax nag fierté Grand suñu fierté yëpp Grand Yoff la te bëgguñu ñu dégg turu Grand Yoff moo ñu tax a jóg waaye daal looloo ma fi indi tey waa ndeysaan li ñu wax rek euh, béykat du gëj tool wala bu gëjee tool du ko jig ñun nag yëf yi lii ñu jig ndax ku ne xam na ne mbas mi dañoo téye woon ndax li waroon nañ ko def depuis décembre waaye li ma doon wax rek naan yuuxu nañ ba dee wala nu boo yeexee nu dee melal ni kuy ramu ko dee waaye corona bi ñoo ci a dee waaye nag fi mu toll nii sant yàlla di ñaan yàlla mu jëlee ko fi ñaan nag ñi mu ñi nga xamante ne ñoo feebar suñu borom defal leen wér ñu jóg waaye nag li ñu wax mooy projet yaa ngi fi ndegam ren boole nañ ñu ci révélation de l'année suñu projet yëpp déwén ñu doon type de l'année la waaw Abdou Saliou maa ngi lay nuyu di nuyu seen internet yi ñuy seetaan waaw fiexte ci daje bi ah fiexte la di rendez boo xamee euh, dañu ko def chaque année euh, mu nekk rendez-vous annuel comme euh, ni ñu ko defee at bu jot di dajale les acteurs culturels yi nekk Sénégal yëpp di leen récompenser di promouvoir seen liggéey di wane seen liggéey ki def loolu nag di Souleymane Souleymane Ndiaye di ki nga xam ne moom moo ko initié depuis ko nag moo initié ko ba léegi maag moom ñu ngi ci liggéey ensemble liggéey bi ci ginnaaw ak ci kanam donc jour J la ñuy gis ñu taxaw sur scène présenté waaye avant loolu ci ginnaaw dañuy liggéey liggéey bu métti métti métti pour rek bis bi taaru pour rek sunu artistes yooyu ak sunu acteurs culturels yooyu àdduna Sénégal Afrique ñëpp gis seen liggéey ñëpp xàmmee seen liggéey ñëpp ràññee liggéey bu rafet bi ñuy liggéey donc loolu feexte la ci bis bi tey ma ñëw fii fekk fi képp kuy acteur culturel voilà vraiment. musique bi léegi xale yi ñoo ko yore mooy. Euh, euh, euh, lii ñuy liggéey di culture bu Sénégal xale yee ko yore jeunesse su Sénégal ñoo ko yore boo xoolee ñoom ñoo fi waykat ñoom ñoo fi chanteur religieux ñoom ñoo fi animateur ñoom ñoo fi tambour donc jeunes yi rek pratiquement ñoo koy def donc dëgg la mag ñi ñi ngi fi ba tey mais ñi ngi ci ginnaaw di accompagner jeunes yooyu te nag bu ñu demee ba jeune yooyu nekk au devant mag ñi di leen accompagner di leen épauler structure bu mel nii nga xam ne moom moo di Raaya Music Events Euh, euh, créer bés boo xamante ni day jël raaya show jox ko ndaw ñooñu di di leen di récompenser di promouvoir seen liggéey loolu vraiment fierté la pour la jeunesse sénégalaise waaye jeunesse bi nga xamante ne ñoom ñooy promouvoir culture sénégalaise. tey lii nga xam ne moom moo di raaya musique bu demee ba ñëw di leen récompenser di leen promouvoir di wane seen liggéey liggéey bi ñu koy liggéey ni mu jaaree yoon mooy que nanu gën a góorlu suñu liggéey suñu euh, musique bi wala sunu culture bi. dafa war jóge Sénégal dem ci ay pays yu mag a mag dem ci ay dëkk yu rëy te loolu nag pour mu am il faut artiste toll fenn maanaam ñu di la épauler di la euh, euh, accompagner di la soutenir Rayo Musique dafa ñëw pour soutenir la musique sénégalaise mais culture sénégalaise à la base. ñu ngi ak sunu doyen DJ Prince ñu ngi lay char mais Equivox maa ngi leen di ziar maa ngi ziar également waa Midat TV. Euh, gannaaw lan moo waroon teewa lan moo waral teewaay bi fii. teewaay bi euh, Souleymane dafa commencé di que dafa il hmm, a quelques années mu créer benn concept. di delloo njukkal ñi nga xamee ni dañuy yëngu ci wàllu aar moo xam way moo xam rajo télévision moo xam les nabiens mu boole ñoom ñëpp. chaque année mu leen di delloo njukkal te gis nga nit jamono bu muy liggéey ñu koy wax waaw góor dafa am solo gis nga solo boobu ñun ñi nga xamee ni yàlla def nañu xaw nañu yàgg ci mbir mi ñu ni duñ ko seetaan dañ koy soutenir loolu mooy tax man tous les ans ak fu ma mënti nekk damay dellu soit ci Sénégal euh, fekkee affaire bi su fekkee damay delluwaat damay delluwaat su fekkee delluwaat ma damay toog mais c'est un projet boo xam ni sama teewaay man c'est pour soutenir le projet. bon musique bi euh, du ma def jugement parce que musique dafa relative ma sàmba li muy def mën na neex paate ma demba li muy neex li muy def du neex paate moo tax man jamais je n'ai jamais jugé un artiste ci li muy liggéey parce que je me dis souvent que ni ñun les animateurs balaa ñuy teg cassette cassette bi day jaar ci ay loxo producteur jaar ci ay loxo ingénieur de son jaar ci ay loxo par exemple euh, studio d'enregistrement ñooñu ñoom ñooy ñi njëkk déglu li muy def su neexul ñooñu ñoom lay delloo delloowaat ci suuf donc ñooñu ñoom les premiers témoins ba nga xam ne moi je me dis souvent que ni euh, yow tey li ngay def dama lay ñaanal ëllëg que tu te une télévision boo xamee ni à travers le monde nga liggéey li nga war a liggéey nga liggéey ko dignement nga liggéey ko euh, carrément parce que man je ne suis je fais pas partie des animateurs yoo xam dañuy décourager nit li muy def musique bi mu ngi ci yoonam ñi ko war a consommer ñu ngi koy consommer ñi koy liggéey ñu ngi koy liggéey maintenant nag ku ci xool sa morom gis ni sa morom mi ngi ci kanam nga xool sa morom li mu def ba nekk ci kanam nga jëm ko def yooyu pour nekk ci kanamam humilité bu ñu mës a jaawale Euh, métier bi succès la war a doon ba mu jeex nañu wut plan plan de carrière nañu respecter la ñuy def nañu jox cër ñi nga xamee ni ñoom ñoo leen jiitu ci lii ñuy def parce que léegi métier bi bu ñun bi ñuy ñëw amul école mais yéen am ngeen école parce que lii ngeen di def nii école la da ngeen di jàng laaj da ngeen di jàng tenir micro da ngeen di jàng def des interviews da ngeen di jàng def des plateaux de télévision moo tax ëllëg si vous vous ci beneen télévision du ngeen am problème parce que jaaroon amoon ngeen jaar-jaar donc yéen ñu ëpp chance yéen ñu ëppoon chance leneen li ci des rek mooy ngeen dem cultiver wu ji euh, yokk xam-xam bi su ko defee ku ci sa wërsëg nekk nga war ci teral teralaate ci yàlla dina ko def. waaw balaa dara maa ngi nuyu ñëpp. di ñaanal ñëpp jàmm encore une fois sama teewaay leen la mooy dañ maa nominé ci artistes yi nga xamante ni leen war a récompensé loolu mooy sama teewaay fii tey. waaw def pat man nominé nañ moo ci trois catégories artiste de l'année euh, catégorie tube de l'année ak catégorie vitrine de l'année waaw ni ma ko dundee mooy sant ah, sant ak gën a joob rek ak wàcce sama boobu xam nga bañ a yëkkati dara parce que dara du fi dara ah. gën a joob gën a liggéey rek. succès amagul dañ koy dund incha allah génn ko bu ñu génnee affaire ba mu génn feneen nag ñoo ko dund succès bi quoi mais instant yi succès amagul loolu laay dund man. waaw du ma nee expérience tamit ay xale lañ toolaguñ fenn defaguñ fi dara dañuy jéem di góorgóorlu ndax kenn mënul ku yàlla dooleel la fi nekk mais tamit feeling baa ngi fi feeling bi moom mi ngi fi. te du jeex waaj la waaw. <laughs> waaw aussi yeneen ak yeneen parce que type bi ma mujjee def nii génnagul ciriri du mbalax amul sabar amul dara leneen la quoi mun na daw fépp ci àdduna te maa ngi waajal ci affaire yooyu lu bëri li benn annonce la nii pour wane ne man maa ngi waaj a dugg beneen album ak ay événement yu mag incha allah ak ay tournée nationale ak lépp incha allah ak international waaw incha allah suba teel la. Sénégal Music Awards et je suis ravie d'être ici voilà. révélation lañ la. oui nominé dans la catégorie révélation de l'année. Euh, dama dama kontaan et j'espère que je vais gagner inchallah. yes. jànk bi ñu way way boobu xale nga de. juddoo ko moom sax. c'est que way bi daf ma dab rek dans le dans mon cursus de d'Armit sama producteur nekk koo xamante ni c'est une personne minimaliste. Donc c'est dans cette optique qu'on a eu un résultat comme ça avec Chéri Bobo. pas du tout, je m'attendais vraiment pas à ça et ça m'a fait très plaisir. kontaan naa trop bi Chéri Coco génnee ma gis ni que ñëpp apprécié woon nañu tout. c'était surprise la woon si man de franchement xaaruma woon loolu donc on te souhaite chance. merci beaucoup ñu bàyyi la nga may lu tuuti rek fan si. ma may leen lan chéri koko ma yi chéri yaa ma tene law wey naa la chéri sama ndaanaan yaa ma tene law merci say révélation de l'année dim xaar ñu fekk la ci bés bi lan moo waral teewaay bi waa dëgg neexul danoo génne loo xam ne moom la xale yi bëgg muy Liki Liki Lamfaya gars yi jël suñu numéro xam nga rek mhm. daal di wax ñun daañ woo fii moo xam ni mu laay ëwër dëgg neexul mu ñëw nag ñoom ci mbégte trop te ñu ngi ñaan yàlla may ñu ci ndam bu rëy maa nga ca ba léegi dama dama bëgg a xaar rek ba kii affaire yi dal waxal bu baax ngay layam layam yi dama bëgg a xaar rek ba koor gi jeex ma ñëw incha allah ñu ngi ci yoon bi daal ñooy ñëw yàlla baax lan ngay wax fan si ak xarit yeeg am di jàmm yi waa di wax fan nag ñu ñu jàpp ñu bu baax da xam ne ñoom ñoom lañ am dëgg neexul ñu nuy waa Louga nag bu baax mm-hmm. ñi nga xam ne ñoo ñu bëgg torop mm-hmm. te bëgg naa daal yàlla may ñu ndam bi ñu dem lu ko féetee ko. tur bi waaw moom wax na ko Papa la Papa Kara ñu gën ko xam Papa Kara soo Soodaan waaye wax dëgg yàlla nag suñu titre bi yaa leen gën moo tax ñu boole ñu ci lii mooy yaa leen gën bu ñu mu ñu mujjee ci Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam waaw ci la ñu ci la ñu nominé. contentement la benn mbégte la beneen bi mooy dalay ñaaxaat rek maanaam waaw. wax dëgg yàlla lii day tax nga gën a góorgóorlu ndax ah, ah, sikarkat yi nekk Sénégal yëpp ñu boole ñu ci ñu nominé wax dëgg yàlla loolu da lay da dolli jom rek ak dolli lu wax dëgg yàlla du dara loolu kase la wax dëgg yàlla. waaw benn bi ñun affaire bi du du kii de du amul amul amul lu extraordinaire lu ci nekk bëgg-bëgg la rek amour bi la rek. waaw amour moom boo ko defee boo ko boo ko boo bëggee dara doo ci yëg mettit doo ci yëg dara lépp day neex ci yow loolu kase la nu mu mënti demee ñu seetaan lak ñu benn la seetaan ñu déglu lak ñu benn la déglu loo ci am rek bénéfice waaw xanaa di sant képp kuy bëggee Papa Kara rek di la wax ne amoon naa yéene ñëw fi ba fi nga nekk seet si la jox la loxo te di sàkku ñaan ci ci ci projet yu ñu nekk nii ba incha allah suñu borom def ñu nekk ambassadeur wu euh, ci Zikrullah bi à travers le monde yëpp nekk ci ambassadeur wu ci Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mooy ambassadeur wu nekk Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam waaw loolu daal lañ ci bëgg.